jërëjëf soxna Ramatoulaye saar ñu lay euh, nuyu di nuyu gan ñi nga toogal foofu tàmbale ko ci Moustapha Diop mi nga seqal plateau bi ak euh, kii di euh, major Kandji ak soxna Fatou Sow Sarr Daouda Mine ak commissaire Sadio. di rafetlu sujet boobu nga xam ne tànn ngeen ko muy lu am solo waa aju ci wàllu sécurité ci biir askan wi mu nekk sujet boo xam ne itam sorewul bi nga xam ne tànn nañ ko fii ci studio bu minbar bi fii ci masjidu alqalam ñu war ko waxtaanee ak oustaz Hady muy importance bi nga xam ne lislaam jox na ko bakkanu doomu aadama ba mu bokk ci juróom yi nga xam ne lislaam dafa ñëw pour protéger ko mu bokk ci lii di bakkan lii di alal lii di njuréef ak li nga xam ne mooy euh, deru doomu aadama bi ak diine ci wàllu boppam yii la lislaam ñëw pour protéger ko euh, Oustaz Hady euh, rey bi bari na ci biir askan wi coowal rey ci biir askan wi daanaka jant du soo lu fekk na nga dégg ci dara kon waxtaane ko ñëw na ci jamonoom mu nekk mbir moo xam ne itam responsabilité bu ñu partagé la ndax askan wi ci boppam am na ci responsabilité waaye ñi nga xam ne ñooy saytu askan wi am nañ ci responsabilité kilifa diine ak borom xam-xam yi itam am nañ ci responsabilité ci wàllu yar bi ndax lépp mu ngi soxeekoo ci ñàkk yar ak pauvreté bi nga xam ne yaatu na lool ci biir askan wi kon Oustaz Hady ñu bàyyi la rek nga indi sa kàddu ci wàllu woowu. al imam Hassan Diouf maa ngi lay nuyu di sof sama nuyoo ci ci gan ñu tedd yi nga xam ne tey ñu ngi ci plateau bi xaaji euh, Moustapha Diop soxna Ramatullahi ak gan ñu tedd ñu am tey ñu dagg seeni yitte ngir ñëw séddoo jaame yàlla yi li leen yàlla sédd ci xam-xam Xasan bakkande dafa amul prix loo gis ci kaw suuf rek mën naa am prix ba mu mooy bakkan mooy lu seer ba kenn mënu koo jënd mooy lu cher ba kenn du ko waxan ko waxante seeraayam boobu ak fooraay ba tax suñu borom subhanahu wa mu màgg mi mi ngi gën ci bakkan ngir lim màgg wa nafsin wa ma sawaaha mu ne wa si wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla du gën ci lu màggut màgg gi bakkan màgg tax suñ borom subhanahu wa taxaw di ci gëj ñaareel bi bakkan foor gim foor a tax yàlla ne benn bakkan rek waxul ñaar waxul ñett boo ko faatee waxul bakkan ba sax mu nekk jullit ak mu ñàkk nekk jullit nay nit rek mu ne mel nga ni def nga gravité du toll ni ku tukkal àdduna bi yëpp li nga def garaaw na ba mel ni àdduna bi yépp ko tukkal loolu nag ñaari déggin la amin xasan xam nga bakkan bu mën a doon buñ ko faatee képp ku am yëg ak doomu aadama rek am yëg ak dund da ngay yëg ne kii liñ ko keñ maag moom ñoo ko bokk yëg naa ci sama bopp hmm. moo tax ndaw soo suñu rey Tambacounda kuy jullit ak ku dul jullit kuy mbokkam ak ku dul mbokkam metti na ñëpp la métti ñëpp ko ñëpp rek ñoo koy métti hmm. kon dund moo mel noonu dund fa mel ni lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk nag loo ca laal ñëpp a koy yëgandoor ci naqar lu ñëpp bokk tamit loo ca laal ci jéem koo jariñ ci jéem koo sowe ñëpp lay lay lay neex tey xam nga bu nit yéegoon ci kaw étage comme li xewoon ci malien boobu bëgg a daanu mu yéeg fi mu jaar ba sowee ko xam nga loolu ku ko digg rek ak foo mën a nekk ci àdduna bi rek da ciy kontaan da nga fay mel ni yow ci sa bopp yow lañ ko defal naka noonu tamit bu nekkee lu ñaaw day mel ni tamit yow lañ ko def moo tax yàlla ne wa man ahyaaha fa ka annama ahya naasa jamian benn bakkan boo ko dundalee dafa mel ni dundal nga nit ñëpp lu tax dundal nga nit ñëpp mooy ne tàbbal nga bànneex tàbbal nga timit mbégte ci xolu ñëpp to saa yoo taxawee nga sooy bakkan rek mm. sooy googu bul jàpp ne benn bakkan la mais sooy waale nga bakkan yëpp mm. euh, ndax kenn ku ci nekk yëg ci sa bopp ci kontaante ak mbégte mm. waaye mun tamit boo reyee benn bakkan dafa mel ni adduna bi yëpp nga rey ndax ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ba ak gravité gi ci nekk mboolem ku am bakkan ci kaw suuf rek jullit nga dunoo jullit yaa ngi koy yaa ngi koy naqarlu mm. kon mu mel ni tey li li xew ci ji jamono mm. ku ko def foog ne moom rek nga def mm. fekk na taabal nga lu lu ëpp juróom-ñaari milliards naqar ci seen i ci seen ci seen ci seen bakkan yi xasan te oustaz Adi boo seetee sax euh, mu ngi mel ni faat bakkan mooy crime bi ñu njëkk def ci kaw suuf. mooy mooy crime bi gën a bi njëkk ci kaw suuf. Mm-hmm. ndax bi fi yàlla indee suñ maam Adama yàlla indi fi ñaari doomam yooyu muy Xaabil ak Haabil. Mm-hmm. gis nga ba yàlla def saytaane man Xaabil ba mu rey Haabil. Mm-hmm. la ca xew ba ba alquran fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa fa qatalahu xoolal nafsu rek fa tawaat lahu nafsuhu rek fa qatala fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin xoolal la mu ko jural moom tamit ray gi mu ray bakkan boobu rek yàlla nee na mujj na ma jël listim bi classé ko ci ña gën a perte ñi perte kay xam sofaanu la mu soxla woon ci rey ba yëpp am sofaan bu ko dal moo ko mujj am dafa foogoo ne bu ko rayee dana ci yëkkati ko mm. dana foo ne doon xëccoog moom muy wàllu ndaw si xam nga jigéen tamit moo sooke loola mm. mu foogoo ne loolu lépp fekk la dara amul ki ci ci loolu ne ko pertement goo xam ne du dañ di ko topp yonent bi sax bañ na ko ba wax ne ku rayeeti bakkan Mm-hmm. fii ba àdduna bi tukki mm-hmm. moom am na ci cër te du wàññi ci yow mi rey bakkan bi dara mm-hmm. moo tax lu bon garaaw saa yoo ko defee ci quartier bokk ki ñu ko njëkk def wala nga def ko ci réew wala nga def ko ci ab ab société wala nga def ko ci benn gox loola ku ko defati ba bay àdduna bi tukki rek yow dafa am cër bu la ci yàlla sédd te du wàññi ci cërëb ki ko def benn waaye Oustaz Ali euh, boo seetee ci biir société bi dafa mel ne li wolof di faral di wax naan luy raam ci ñab bi la jëm Euh, langage yi maanaam waxin yi ni ngay gisee mu nekk lu agressif nit ñi seenu naqari deret ci biir oto yeeg ci jëflante yeeg yu mel noonu mu ngi mel ne toujours loolu mooy nekk signe bi nga xam ne euh, mooy dem ba ràmb àgg ci ci rey léegi nag mu mel ni éducation de base nit ñi delluwaat ci yar li mm-hmm. mm-hmm. fi mag ñu bàyyi woon ñu dundal ko euh, école bi joué rôle am mbedd mi joué rôle am kër gi joué rôle yaakaar naa loolu itam bokk na ci li nga xam ne mooy buddi garab bi nga xam ne ñu ngi ko samp ci biir euh, société bi te waru fe sax Xasan li nga wax yëpp tënk nga ko éducation bi rek foofu mooy fi la problème bi nekk sa ndaw boo ko yaree yar bi war bi nga ko war a yar xelam dana am leneen lu muy daj waxuma la rey nit Xasan am na ñoo xam ne yar nañ leen ñi am yar boo xam ne ak yërmande goo xam ne melentaan sax mënuñ ko rey hmm. même bu leen mattoon mënuñoo rey dara Mm-hmm. am na ñoo xam ne seen yërmande yegg na ci sax mënuñoo rendi xar ak bëy mënuñ sax rendi ganaar mm-hmm. ñu soxlaa woon jëfandikoo loolu dañu mujj wooyi nit ñëw ko ñëwal nga rendil ma ko ngir yërmande ju rëy mm-hmm. waaye tamit xasan nit dana dem xolam wow ba amatul yëg-yëg insaan yee ci boppam newatul ci moom insaan la rek mais insaan yi amatu fa su boobaa kooka mën naa dem a dem ba rey àdduna bi yëpp te du yëg na sax def na dara moom sax nit ñay métti lu loola ay mbokkam di rey ci gàcc waaye fekk moom yëg nañ defu dara ndax li koy waral nag bokk na ci éducation bi hmm. xale yi tey film yi ñuy seetaan ñuy rayante hmm. dafay dem ba am lu muy def ci sa xol hmm. yi nga xam ne tamit yaa ngi koy xool ci internet bi di ko xool dafay dem tamit ba am lu muy def ci sa xol ci ak ci ci ci ci wow wow boo xam ne dootoo dootoo dootoo dootoo jóge ci dara yooyu yëpp tamit fokk waajur yi gën cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax daan yi ñu teg ci ray tamit ñi gën koo saweeral ba nga xam ne day gën a diis ba nga xam ne kenn du ko ñemeeti mhm. xam naa sax euh, suñu ñaareelu tomb bi mooy nekk euh, nan la lislaam xeexee rey pour mu jóge fi loolu xam naa suñu tomb bi di ñëw waaye am na itam euh, oustaz Adi boo seetee Sénégal léegi dafa mel ne rey bi xar lañ ko miine woon mais nit la ñuy rey léegi mhm. rey nañu xar sax moom daanaka bariwul loo koy dégg waaye nit daal ñaar ñett rek daanaka ñetti weer yu jot di nga dégg ni am na ku jam keefee am na ku def lii fi te la koy waral boo ko seetee lu tuuti lay doon xuloo ci juróomi dërëm ci biir garage rek mën na tax ba ñu ne jam na ko paaka rey na ko mhm. walla nangam histoire ci biir oto ba mu àgg foofu euh, te loolu mu ngi amee ci dëkk boo xam ne euh, li fi nekk ci kilifay diini ak li ñuy wax ak orientation yi ñuy def li ñuy nekk li fi nekk ci ay écoles yu jàngale day dem ba nga laaj sa bopp sax fan lay fi tagee ndax ci nit ñi ñoo mënul baax wala bokk ñi orienté ñoom ñoo war a yokk seen loxo. Xasan dara yóbbuwuñu ko dañoo bàyyi suñ culture rek jël culture wu jàmbur bàyyi ni nga xam ne ni la bàyyi ak maam yi doon yaree jël yaru keneen moo tax bu njëkk ba pour nga dégg ñu ne nit rey na nit ci jamonoy bàyyi ak nga dégg ko ci jamonoy maam yi lu jafe-jafe woon la te Sénégal yooyu ñoo fi nekk ba tey mais yarin wi ñooñu dañ leen a yaroon ñi am luñ bañ am lu ñu jomb am lu ñu rus xam ne tamit penc mi ñi bokk ak Sénégal gi ñi bokk ak dund gi ñi bokk ak société bi ñi bokk ak insaaniye gi nga xam ne tamit ñoo ko bokk kenn ku ci nekk da cee am responsabilité boo xam ne da ko cee war a bay war ko cee def muy lu rafet nga ne man damay bokk ci ñi koy rafetal mais man duma bokk ci ñi koy ñaawal booba sax pour nga gis ku rey nit même boo reyoon nit tayuloo ko sax da lay jaral nga rey sa bopp Mm-hmm. wala nga daw kenn dootu la gisati mm-hmm. waaye tey da ngay def ñaawteef googu te du mujj fenn mm-hmm. kon te jamono ji ñu toll li fi tumuranke mooy nga toog ba weer dégguloo ñu ñu rey semaine dégguloo ñu ñu rey bi la mu dégguloo ñu ñu rey loolu mooy tumuranke waaye moom dégg ñu ne rey nañ nangam loolu dëkkatul loolu tumuranke te li ma la wax yëpp ñi ciy reyee ñëpp boo leen seetee li ci ëpp ay xale lañu xale yooyu nag njàng mi ñu waroon a def ci moom ak yar bi ñu waroon a def ci moom ak jikko yi waroon a def ci moom moo manqué moo tax moo waral bu ñu manqué loolu rek dem jëli yeneen jikko di seetaan yeneen loo xam ne nekkul seen culture dañuy mujj di indi ci penc mi loo xam ne nii penc mi xamuñ ko woon al oustaz Assane mhm. jërëjëf oustaz adi muy ponk bu am solo xam naa rek euh, li ñuy def mooy ñu dellu ci Ramatoulaye Sarr bu ko defee mu tàmbale ak ganam ñi ci sujet boo xam ne daanaka mooy sujet bi ñuy waxtaanee rek ndax euh, li nga xam ne xew na ci dëkk bi temps yi ci ay rey loolu mooy seen sujet kon soxna Ramatoulaye Sarr ma bàyyi la ak euh, kii di Moustapha Diop ak seeni gan indiwaat ñaareelu xaaj bi nga xam ne fii ci masjidul xalam dinañ leen ko indil tey ci sujet bi nga xam ne itam moom la ñu indi muy importance bu bakkan ci giseenu lislaam kon soxna Ramatoulaye Sarr ñu bàyyi leen ak euh, leng euh, soxna Ramatoulaye Sarr ñu lay sant di lay gërëm di sant sa gan ñi ak sujet boobu nga xam ne développé nañ ko ci lu am solo muy ne rek euh, nañu wër yoon wi nga xam ne ci lañuy jaar pour ñoŋal bakkan ndax euh, bakkan lu cher la ci gisiinu société bi ndax kat euh, société bi nekkul ne li fi nekk moo koy doxal waaye ñi fi nekk ñoo koy doxal hmm. te ñooñu ay bakkan lañu kon bakkan boobu war nañ ko protéger war nañ ko aar responsabilité bi itam dañ ko partager ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu askan wi seen wàll wi réy na ci ñi xam ne ñooy yar ñi nekk ci kër yi seen wàll rëy na ci waaye borom xam-xam yi nga xam ne itam ñooy éduqué ñooñu itam seen wàll rëy na ci ndax kat rey bi ci dëkk bi oustaz Adi dama jàpp am na ci loo xam ne dañ koy dànkaafu ci lu jege ak loo xam ne dañ koy dànkaafu ci lu sori dañ koy dànkaafu ci lu jege mooy fépp foo xam ne lëndëm na war nañ fa def làmp mu leer fépp foo xam ne ñàkk na euh, poste de police boo xam ne day sécuriser. Euh, war nañ ko fa samp loolu lu jege la waaye la ko gën a sori mooy ñu yar nit ñi ba nga xam ne comme li nga wax sànq dootuñu néegati sax jam nit sax ba nàccal ko deret waxantuma laa ñu ñu rey ko yaakaar naa ne oustaz Adi euh, logique boobu bu fekkoonte ne doxee nañ ko yu ci bare bare bare euh, dina mus dina fi mus a jóge wala mu wàññeeku oustaz Adi ci biir loolu rek ñu ñëwaat ci beneen tomb boo xam ne ci wàll wi mooy nan la l'islam protégé bakkan yan matuwaay la lislaam jël pour rey jóge fi asan xam nga bakkan booy jàng mantiq dañuy wax ne day bokk ci kulliyaatul xams mm-hmm. muy juróom yi nga xam ne doomu aadama ju nekk war na koo wattul moromam moromam nitam mm-hmm. mooy fexe ba wattul ko bakkanam la ñuy njëkk a lim mm-hmm. bakkan foor gi foor màgg gi màgg moo waral yàlla xaraamal ku ko rey Mm-hmm. ñaareel bi war nga ko wattul deram ba bul ko yàq ndax am na yenn kàddu yoo xam ne ku ko teg ci deru nit daanaka rey boo ko rayut ci daanaka rey nga ko rey nga ko rey anamu rey la rek waral suñu borom xaraamal xaste mm-hmm. ba yoonal ko def nañ la caw juróom ñetti fukki yar mm-hmm. ñaareel ñetteel bi fonk guñ fonk alal xam ne nit mënul dund sans alal mu ne nañ ko wattu nañ ko garde nañ ko fonk def ko ci liñ ko war a def looloo waral mu xaraamal sàcc ba ne ku ko def nañ dog loxoom ndax boobu loxo feebar na jabet na balaa feebar bee monte ci yaramam ñu feet fi feebar bi toll rek ñu dagg ko ci wassaariqu ay faqtaw aydihuma waaye wattu gi yàlla wattu askan ñu lu am solo mm. juddoo fi nga war a juddoo boo màggee dafay am lu muy jeexital ci yow ñu juree la fi ñu la war a juree tamit dafa am lu muy jeexital ci yow waaye boo juddoo fi nga war a juddoo rek dana am lu muy feeñ ci yow moo waral yàlla xaraamal njaalo ba ne ki ko def su fekkee sangeegul téeméeri yar su fekkee sangewu na nañ ko rey kon dama bëgg a wax ne bakkan bokk na ci kulliyaatul xamsa yi mhm. ngir foor gi nga xam ne bakkan maanaam foor na ko yàlla nag ñage na bakkan mu ne ñagee na ko ba ne ñag gi ma ko ñag ba kenn warul yegg ci moom di ko rey ñag boobu nag bu ko nit traversé ba yegg ci moom ñaara mën a am benn mu am ci njuumte wala mu am ci tayeef mu jël nag mu ne bu amee ci njuumte yow mi rey kenn du la rey ndax njuumte duma ma ci topp da ngaa moor daal dañ nañ àtte ci yow moor rek ku rey nit rey leen ko yàlla nee na mënu leen fee jëlee rey ci lu dunu rey alqatlu anfa lil qatli ci alqatlu anfa wa fi qisaasi kon wa fi qisaasi xayaatun mm-hmm. yaa ulil albaab waaye xam nga ni ñi bu nekkee naan bu fekkee ni ki dafa rey nga rey ko ñaari bakkan la ñu nekk ñoom léegi seen problème yëpp dañuy protéger bakkan ki rey mais mm-hmm. protéger wuñ bakkan yi ki ñu reyal mm-hmm. loolu nag yàlla gisee giseewut noona ñi ko ñenn ñuy waxee ci seen loi yooyu déedéet mm-hmm. ndax nit ki bu ko wóoree xasan ne bu reyee bakkan bi danañ ko rey dafay ñoŋeel bakkan booba ngir ñoŋeelaale bakkanam bi waaye bu ko wóoree ne bu reyal nit ki tamit dañ koy tëj ay at rek génnee ko dara du ko ca fekk mhm. ala kulli xaal ray gi day gën a bëri waaye bu tey bu wóoroon ne te nit dafa ray ñoo bugg ci place publique yi ray ko ni mu kooka ñëpp gis ko waxuma la moom mais dana dana jàjji li wa mboole dana jàjji mbooleem société bi mhm. kenn kuy ñemeeti loolu ku koy defati amul mhm. waaye tubaab yu bon xilaat yu bon yi ñuy indil ci xilaat tubaab yi moo ñu yàqal lu bëri ndax mënuñoo gën a mënuñoo gën a fonk xasan bakkan yàlla ñu bind bakkan fu euh, loolu moom mooy lu wér te maanaam ñoom euh, ñu ci bari dañuy yaakaar ne dañu ñëw nit ki dafa rey ba pare ñu ne ko kaay ñu rey na hmm. mais balaa muy rey lañ ko ne woon ah bu ko rey ndax boo ko reyee hmm. yow rey nga sa bopp. lu jiitu loolu lañ ko waxoon ne ko reyee rey nga sa bopp. Hmm, léegi bu ko reyee nag mooy ne rey na boppam. te euh, boo ne boo ko reyee ñaari bakkan nga rey waaye boo ko bàyyee rey nga nga fukki bakkan. ndax ubbi nga bunt boo xam ne. kenn ku ci nekk daf ciy mën a dugg. Mhm. ci ci lu yomb. gisoo gisoo atte yooyu di ko yonent bi bi ko yàlla wàccee ci yonent bi mu koy appliqué mais ñi ñu ko teg ci dundam ñu néew lañ. waaye mhm. mu wane nañ kuñ ah, ku koo xam ne da ngaa mooy te fekk sangewu nga nañ la rey mais ñi ko yonent bi def ñu mën a lim la. waaw parce que conditions yi charte ya ah. war a dajaloo sax pour ñu mm-hmm. exécuter loolu. ñu bëri dañu yaakaar ne yombee na noonu waaye yombewul noonu. Mm-hmm. kan mooy ki rey balaa nga koy xam. procédure bu gudd gudd gudd la. ndax dafa tey wala teewu ko. sibhul sibhul amdi sax dafa am. waaw nga jël benn bant rek boo xam ne bu oyof la nga door nit ki ndeke. Mhm. mu jaare a génn waaye yooyu yëpp lislaam négligé wut ko. yëpp ba mu leer naññi bala da koy teg ci yoon lu leer naññi. loo leer njuumte wala sibhul amdi kenn du ci mhm. ray nit. dëgg ba mu leer naññi bala laa ray. Mhm. jërëjëf oustaz euh, Adi xam naa euh, li ñuy def rek mooy dellusiwaat ci euh, Ramatoulaye Sarr ca kaw bu ñu ñëwee nag dinañu. indi beneen tomb boo xam ne euh, information yi jóge ci réew bi toujours dafay ànd ak moom oustaz Adim ñu war ko waxtaani mm. muy wàllu sénèbre mm. dañuy naan rey na ko kat waaye ba mu koy rey ànduloon ak sagoon dafa am lu mu naanoon dafa am lu mu utiliser woon wàllu woo itam lu am importance la mm. ci bu fekkente ne dañu fi bëgg a jëlee njomb yooyu nga xam ne ñi koy def ñi ci ëpp ay jeunes lañu te li leen koy def loo lekk-lekk mu nekk loo xam ne li tux loo warula tux wala naan la warula naan la kon point boobu incha allah ci la ñuy ñëw. jërëjëf euh, soxna Ramatoulaye euh, Sarr jërëjëf euh, El Hadj Moustapha Diop ak gan ñi nga xam ne yéen toog foofu ci plateau ba di amal njàngat bu yaatu ci sujet boobu nga xam ne itteel na askan wi ndax sujet la boo xam ne bu ñu ko réglé wulee dara du mën a taxaw ci biir société bi ndax insécurité fu mu ñàkk rek daanaka kenn du fu mën a taxawal lenn loo xam ne dafay jëm ci wàllu développement parce que sécurité d'abord balaa ngay wax développement. falyabudu rabba hada al bayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf sécurité ak sécurité alimentaire yàlla daf leen tuddandoo ci saar woowu mm-hmm. kon benn bu ci nekk bu ñàkkee rek du baax ci biir société bi mm-hmm. oustaz Adi kon euh, ñu ñëw ci suñu tomb bu mujjee bi rek mooy ne rey bi bari na ci biir dëkk bi ndax kàddu yi sax dañuy reyante balaa balaa balaa jëf ji di ñëw mm-hmm. ku ma def lii nangam ku ma laal lii nangam agression yi encore bari na bari na ku ñu reyal waaye daanaka rey nañu la ndax këf nañu sa sa portable. yooyu mooy rak rakku rey nag mooy dem dem dem dem ba ñu ne rey na nit. te loolu hmm. loolu bari gi bari ci dëkk bi sax yore sa portable ñu fekk la fëkk ko boo riposté ñu rey la. Hmm. ñenn ngi dañuy yore seen saak yore versement jëm ca banque ba. Hmm. ñu topp la ba xam ne yow mii lii nga yore ñëw fëkk saak bi. ay borom yi jakarta la ñu doon. ñenn ñi dañuy gis fekk yaa ngi yore oto. ñoo mm-hmm. xam ne damay wax nii lu ma xam la am na ci ñoo xam ne lu mat ay cent millions ñi ay deux cent millions dugal ko seen oto mm-hmm. am fu ñu war a dem war a voyage mm-hmm. ñu fekkal ñu fexe ba jël oto bi bënn maanaam euh, euh, def ay trou ci kii bi euh, ci ci pono yi yoo xam ne bu oto bi dawee tuuti rek dafay crevé nga yëg ko nga yëg ko fekk ñoom monté nañ ko ci ba pare waaye doo ko yëg topp ñoom fekk monté def nañ lépp topp la nag di daw ay seen jakarta par nànk nga daw tuuti rek crevé ni nga ubbee porte bi di xool noonu rek ñoom ñu fëkk saag bi daw hmm. loolu ni mu mel ci dëkk bi kenn mënu la ko wax wala lu mel ni làmbu tas wala yeneen ñu def benn fuul hmm. ku ñëw bëgg leen a traversé hmm. li nga yor yëpp ñu nangu ko ku ku ku bañ nangam ak nangam nga xaw a riposte ñu ñu jël sa bakkan loolu tamit ñi ñu ci gaañ kenn xamul ni mu toll kon aajo waat na xasan ñu delluwaat ci sécurité bi lool biram sécurité nag biram état la am na ci responsabilité bu mag fexe ba fépp fu war a leer leer nañ fépp foo xamee na nii tamit dañoo dañ dañ fa xaw a am luñ fay ragal wala ñu am luñ fay tiit ñu am ñu fa taxaw di garder sécurité bi di bàyyi xel bu baax ci nit ñi ñaareel bi tamit wàllu sécurité bi ah, eh, maanaam waajur yi am nañ ci responsabilité kenn ku ci nekk fexe eh, yar sa sa sa njaboot xam heure bi muy war a génn xam heure bi mu war a nekk ci kër gi xam fi mu nekk loolu lépp nga xam ko mais léeg-léeg mën ngaa nekk ak sa sa doom ci kër gi ñetti fan xamoo fu muy fanaan xamoo li muy yendu loolu sa yoon nekku ci xam nga mm. loolu tamit kenn mënu ci dara mm-hmm. kon maanaam waajur yi am nañ ci par responsabilité bu mag mais état bi tamit am na ko ci bu mag jàngalekat yi am nañ ko ci waxkat yi am nañ ko ci ñi ñi ñi yeete tamit am nañ ko ci yooyu yëpp kenn ku ci nekk li la war boo ko defee rek xam ne lii luñ bokk la te lu ñu ci dal muy lu naqari ñun ñëpp koy yëgandoor bu neexee tamit ñun ñëpp koy yëgandoor loolu lépp kenn ku ne bu ci bayee waaram rek yàlla mën na cee def ndox mu sedd te li nga wax sécurité dafa am solo yonentu yàlla ibrahim bi mu tabaxee kaabatal musharrafa hmm. la mu njëkk ñaan yàlla ca dëkk ba muy màkk mooy sécurité ij'al haadha al-balad aminan aminan d'abord bi mu ñaanee sécurité ba pare ci la a ñaan wërsëg hmm. parce que sécurité mooy dalal wërsëg hmm. réew mu mën a doon bu amee sécurité rek ñu yore seen i koom-koom war a ñëw war a def seen i financement dañuy ñemee réew mooma ñëw nag liñ bëgg liñ liñ bëgg a installé ñu ko faa installé bu yàggee rek réew ma jëm ca kanam waaye amul menn réew mu mën a développé te fekk amuñu sécurité kon moo tax Ibrahima loolu la yëg mu ñaan sécurité ba pare door a ñaan nag wërsëg yàlla sotti ko ca dëkk ba. Mm-hmm. looloo waral ñaan nga tamit nangu na sécurité bi am na waaye en même temps tamit am na lu ñu mën a bayee ci àdduna bi ak fu ñu koy mën a jaayee boo demee rek da ko fa fekk loolu lépp mi ngi amee ci ñaan ak barkeeb mm-hmm. euh, suñu maam Ibrahima euh, Oustaz Hady junjee nañ ko sànq muy ténèbre euh, bi nga xam ne ndaw ñi dañ koy jëfandikoo muy yi nga xam ne boo ko toxee wala nga naan ko nga taxal kook sa sagu mu yaatu lool bari lool ba nga xam ne sax daanaka boo amee ñaar fukk léegi rek nga mën cee am mu nekk lu grave loo xam ne itam euh, mooy raamati raamati rek ba àgg ci. situation loolu nga wax dafa bëri xam nga bu ñu demee bay jaay sàngara ci ay sase. Hmm. ñi koy defar xale yu ndaw yi jàng ñi am ay quinze ans ñi am ay quatorze ans di ko naan ba tax maanaam nit nag bu amutal xelam parce que xel mu ngi mel ni buum goo xam ne mooy yeew nit ki. muy àqlu daal muy àqlu sax moom la ko arab far tuddee mm-hmm. muy buum koo xam ne moo lay yeew ba doo wax wax ju waxuwul doo jëf-jëf ju jëfuwul sa xel moomu nag bu yewee ko li ko yewi nekk dorog moo wala mu nekk sàngara lii da ko naan lii danga ko tux lii nga fóon ko ba sa xel mi xas yewee ko yàgg bàyyi ma yéen a yem rek wuutee ngeen ci jëmm ci diggante ay tànk ki nopp ki bët waaye yéen a yem tamit ci jikko ndax moom bàyyi ma bi amul benn lu yeew xelam looloo waral fu mu taxaw saw fu ko neex mu tëdd fu ko neex mu joteek kii sax mun na nekk yaayam bi ko jur muy joteek moom ndax lu ko waral xel nekkatu fa bi koy ba koy mën a xàmmel ne ko lii lu baax la lii lu bon la nit ki tamit nag su jëlee jëfandikoo loo xam ne day waral mu ñàkk xelam ba tax mu jëf lu jëfuwut charia dafay wax ne dañ koy teg li ñu war a teg ku jëf lu yoo xam ne loo xam ne ni yaa ko tey ndax loolu charia d'abord hmm. dafa la ko tere woon ne bu ko jege du nekk ngant bu loolu du nekk ngànta hmm. kon boo jëfandikoo drogue bi wala nga jëfandikoo sàngara si wala nga jëfandikoo lu ba dem ba tax nga jëf lu jëfewul nga rey nit li ñu war a àtte ci yow ci sariya rek dañ lay war a rey mais drogue bi du nekk baaraas buy dox sa diggante loolu nag jamono jooju amoo sa xel sàngara si noonu tamit ak leneen ak leneen leneen ndax loolu la ko woon a jege sax ba koy jëfandikoo hmm. sax jërëjëf oustaz euh, Adi li euh, nga ko waxee rek euh, noonu la te beneen tomb bi sax oustaz hmm. mu ngi mel ne ñu bari bu ñuy wut solution yi dañu ne nañu yokk post de police yi nañu yaasal police fee war na am fee war am loolu baax na hmm. waaye yokkoon école yi moo gën a am solo sa yokk police mhm. te bu ñu waxee école nag mooy école boo xam ne dafay yar mhm. waxuñu école boo xam ne dafay yor mhm. yar ak yor <laughs> yaakaar na yaakaar naa bokkul yor moom mën nga ko def mën ne mën na ko sa jur sax da koy yor mu lool sang nga sang ko ba mu set waaye yaakaar na école boo xam ne dafa am éducation dafa am yar tarbiya li ñuy tuddee tarbiya ak taalim asan boo xamee te fekk yaruwoo sax li koy yàq mooy gën a bari li ngay defar parce que dangay xam ni ngay. da ngay xam ni ngay yàqee. <laughs> moo tax imaam Aliou doon wax ne bu ñu sonn ki jàngal suñu doom yi te fekk yaru leen leen mu ne bu ñu leen jàngalee ba am xam-xam fekk yaruñu leen ay woyu rek la ñuy formé. Mhm. waaye mu ne tamit bu ñu sonn ci yar suñu doom yi te fekk jàngaluñ leen mu ne bu ngeen leen yaree te fekk jàngalu leen tamit ay ay ay dof rek ngeen di formé. Mhm. ñaar yii nag dañoo bari ci société bi. Mhm. ki am xam-xam te yaruwul ak ki yaru amul xam-xam. Mhm. su boobaa nag société société bi day mujj boole ñaar day bëri ay dof mhm. boole koog bëri ñoo xamante <laughs> ñoo xam ne xamuñu mhm. ay ay ay ay ay kii lañ dañuy seet def lépp loo xam ne lu bon la xasan dëkk bi yëpp buñ ko sampoon ay posto police te fekk waajur yi leen war ci seen doom bi ci wàllu yar defuñu ko tamit du sotti kenn mënu ci dara police moom na gën a bëri na gën a yaatu waaye tamit atte bi ñuy teg nit ñi na gën a métti loolu daal bu ñu ko defee rek atte bi gën a métti te atte bi ñu leen teg tamit bu mu ump kenn na ko ñëpp yëg xam hmm. xam xam ko ndoor hmm. waajur yi gën a góorgóorlu ci yàlla su boobaa rek yàlla mën nañoo dimbale hmm. waaye dëkk bi yëpp bu ñu doon ay policier te xale yi nekk ci biir kër yi police mënu la police mënu la fekk sa kër sa biir néeg bi ngay tux dor ngay tux dorog du ci yoonam Mhm. mënu la fekk tamit ngay naan sàngara ci sa biir kër wala nga nekk sa kaw sa kaw balcon mhm. yooyu yëpp moom amul ci sañ-sañ ak yeneen te foofu foofu la importance wu mhm. société bi jàpp ci liggéey bi ci la bokk société bi bu jàppale ci combat bi moom du mën a du mën a jël du mën a am ndax amul benn bandi boo xam ne dafay fanaan fu dul kër te kër googu ña fa nekk xam nañu ne kii saako yi mu doon dugal démb fii moom moomu ko ak heure yi muy jóg ak heure yi muy kii hmm. waaye dañuy naan teg ndax jarbaatu diw la wala doomu diw la ñu koy wax ci rajo nga ne teg hmm. fekk yow xam nga yëpp yëpp ni mu demee loolu yaakaar naa xasan loolu bu amee rek mën a dem boo gisee yonent bi di ko séddale jël responsabilité mu partagé ko ci man raa minkum munkaran fal yughayyiru hmm. bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika ad'afu al iman wax jooju wane ne ne lépp Mm-hmm. nekkul ne ñenn na ko man wala kenn mm-hmm. ñëpp ñëpp rek ñoo ciy boole dugal seen loxo mm-hmm. fokk waajur yi gën a yaraat seen doom ndax ñi yàqu ñu nekk ci mbedd mi ci kër rek lañ dëkk ñi yàqu ñu nekk ci mbedd mi am nañ ndey am nañ bàyyi ñenn ñi dañ leen a seetaan ñenn ñi dañ leen négligé ñenn ñi sax ñoo dem xajootuñu seeni doom ñi génnee leen ci mbedd mi ay xale yu ndaw nga fekk leen ci rond point ñu nekk di gens di di agressé nit ñi jigéen bu leen romb xale bu leen romb mag mu leen romb ñu yaakaar ne am na dara ñi agressé la ca ña koy def boo ci seetee ñi ci ëpp ñi ay 15 ans lañ am ñi ay 12 ans lañ am ñi ay 13 ans lañ am loola fokk base bi commencement bi ca waajuree lañ man a doon mhm. ñaareel bi muy école école yi tamit li ñuy sonnee ci jàngale ñu gën koo sonnee ci yar mhm. waaye toog naan sama xale bi am sama doom bi am na diplôme mu bac am na sama sama xale bi am na licence am na nangam ak nangam est-ce que licence boobu mu am ci xam am na ko ci yar da nga waroon a fexe bis bu amee diplôme maanaam am certificat mu am certificat wu ci yaru bu amee bac mu am ko ci yaru bu amee bu amee BFEM mu am ko ci yaru bu amee licence tamit mu am ko ci yaru hmm. waaye lii lépp bu ko amee ci xam-xam te amu ko ci yaru tamit bu ñëw ci pénc mi dafay dafay dafay dafay dafay dafay gën a hmm. yàq hmm. kon yooyu yëpp fokk ñu séddoo ko kenn ku ci nekk li la li la ci war nga def ko boo ko defee rek buñ boolee lépp yàlla mën na ci def tawfiix yàlla ti mën na ci def tey seex jërëjëf oustaz Hady eh, ci kàddu yu am solo yooyu yaakaar naa loolu eh, dafa sotteeku rek ci plateau bi nga xam ne hmm. mu ngi am ci kaw eh, kon soxna Ramatoulaye Sarr xanaa rek ñu delloo la lenge yi ñu jox mbokk yi nag beneen dox daje ci seen émission bii di Fatwa ñu Mexico ak diineek jamono alxames bii di ñëw rek incha allah ñu sant la sant Moustapha Diop ak seen gan yooyu kon soxna Ramatoulaye Sarr ñu delloo la kàddu gi. jaajëfal ko bu baax oustaz Assane Diouf ak oustaz Hadi ci waxtaan gi tey mu ñeeloon rek wàllu insécurité ñàkk kaaraange gi foofu ci fatwa naka noonu ci euh, studio alxalam